ba tey ci seen scandale du jour vidéo bi nag aussi am na viralité sur les réseaux sociaux mu nekk vidéo boo xamante ne bon du neex ñenn ñi mais ñenn ñee ko def réew mi ñoo ko bokk mu ngi noonu ñu dem déglu vidéo bi ñëwaat. ma ne neexul ba neexul waaye réew mi tamit soxla na bokkaalu Macky Sall de. man moom soxla ma vocal Macky man retour Macky Sall laa waaw bi doy ma retour bi laa soxla retour. ah dinañ ko yéex a gis nee na moom soxlawu vocalu Macky Sall mais retouru Macky Sall la bëgg Macky mu moom na toog rek Macky Macky baaxut ñoo ko wax bugguñu ko na dema dema dem jël ay valisam aj ko ci kaw avion bi yenu ko ay sagam ak i toogal nit da ngay am fulla te gëm naa am nga fulla sàll ngaari lam tooro toogal fa nga toog gis naa la gay keroog ay sa kii nu mu tuddati Seydou Sow def e, organiser réunion fële woo ay nitam nga woote gaa yi yuuxu di xataraayu ma ne nga toog bu dee yow sa billaahi wax dëgg fa yàlla sama vocal doo leen ko jot ah sama image mënta ñàkk ndax nag c'est un international donc image mënta ñàkk mais nag ah, ah waa baax na waaye yéen gis ngeen gis ngeen RTS di waat makki changement gaaw ma ne léegi la ñëw sama xel nii ma ne gis ngeen Macky Sall RTS di ko wane RTS du wax sabut hi RTS nag yéen nag yéen nag ah mane ne waaye lu waaye waxoon na ca delluwaat ma ne ndax yéen a ngi gis RTS di wane Macky Sall wala di wax ci makki Sall man di déggagu moo ko te pourtant chaque jour man ma seetaan journal 19 heures Mhm. ay Aliou Seck journalam dama koy seetaan eh, Ibrahima Diédhiou journalam dama koy seetaan ak keneen ku ku mën a sol costume bi xaw ma tur bi nu mu tudd noonu te mu kanam ki xaw a ñànga voilà ñoo ñëpp damay seetaan seen journal mais dégg mu ñu wax ci Macky hmm, le passé c'est le passé le faire le présent c'est le présent mais le futur c'est le futur yàlla baax na man ki de waxtaaneetuñ ko RTS de waaye RTS yéen a mën a fàtte nag Macky du vocal bu dee may moom du ma vocal bu dee may moom di vous me seen de loin vous me voyez de très loin lii mm, mm, mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. la